yàlla suñu borom yàlla suñu borom këpp ko bëgg yàlla suñu borom na ko santes na ko barkes yàlla moo defal ci àdduna bi yàlla rek yàlla rek benn yoon rek leen war a topp mbir bi yàlla def ndaxte du sunu yoon yàlla suñu boroom yàlla képp ku bëgg empereur de majesté Haile Selassie mooy yoon yon like sila nurotok Moy Rastafari Inadisatan suñu borom yàlla na ko santes na ko barkes yàlla moo defar yëpp ci àdduna bi yàlla rek yàlla wara topp bi di yàlla def ndaxte Babylone du sunu yoon

korom